fii ci plateau bi mooy li nga préparé ci Secka <laughs> ma ne ko loolu fort na. dañuy dañuy dellu dañuy dem dem. dem Thiès ah oui euh, euh, comme ni nga ko waxee rek euh, il faut ñu dem Thiès tey nag Thiès bu ñu fay dem dañ fay seeti ndaanaan bi nga xamante ni moom na ñuy woowee aadama Seck ñu gën ko xam ci Secka. Secka nag moom c'est un artiste bi nga xamante ni bu ñëpp xam ci Thiès muy doomu Thiès juddoo fa yaroo fa mais tamit représenté waa Thiès. moom nag euh, ba muy tàmbali groupe am euh, mi ngi tudd euh, groupe bi Royal Band de Thiès ba nu demee ci ay diir ci la changer groupe bi tuddee ko les Damels ba mu ko tuddee nag boobu ba tey les Damels dafa mel ni daal Royal Band de Thiès bi nu xamoon moo ëppoon code sax que les Damels bi nu xam tey Damels man maa ngi koy soog a découvrir nii sax Royal Band bi la ñëpp xam voilà donc ñu ñëpp ñëpp lu nu gën a xam mooy Secka et le groupe Royal Band de Thiès mm-hmm. moom nag changé na nom bi euh, tuddee ko euh, les Damels mu mel ne rek bu mu ko tuddee le Damels euh, daal dafa mel ne gars yi ko bu baax a baax waaw lu ñuy def nag moo di dem tout de suite Thiès ànd ceeg Cheikh Anta nu xool élément bi ak si waat Alias Seck eh, waykat boo gisee goyeeku benn woyeeku siiwal eh, man nag sëy na yàlla def na tombe na ci ñuy sàmba alaar àdduna sépp ma ko xamee waaw xam nga musique bi moom eh, yàlla ma ci xiir ma bëggal ko sama bopp defal ko sama bopp te aussi vraiment je l'ai pas regretté regretté wu ko Royal Band laa nekkoon jóge fa def formation prévoir mujj gi ma nekk def ko muy les les domaines ba kees comme bu mu ko defee les si nag gis naa ku ma ci gën a xarañ ko war a mën a diriger tam muy Omar mu jël ko teg entreprise bi yëpp ci loxo mu def lépp tout ce qui s'ensuit suñu ba nga ko yoree ba léegi kenn presque tous les mi kenn regretté wul vraiment sa marche comme il le faut. musique bu tax musique ngi dox ñu ngi euh, tëgg fii Palais des Arts a Thiès. et retrouvaille la daal ñëpp a fi daje foore waxtaan vraiment retrouvaille la ñëpp ñi jóge Dakar ñi jóge Kaolack ñi jóge Thiès ñi jóge Mbour retrouvaille la ñëpp a fi daje daal vraiment neex na trop de vraiment. waa Samba bi ma ko génn vraiment même dafa dem ba dépassé euh, fu ne Samba laal na ma fu te Sambala nag c'est un morceau benn benn boo xam ne vraiment de thème la depuis puis sa actualité la daal li xew ci dëkk bi dal di expliquer vraiment euh, morceau bu ñëpp bëgg la daal man xaw ma lan moo ci ne mais bëgg ñëpp a ko bëggandoo ah. dem naa ci ba joué ci ak joué ko ak Youssou Ndour fële à Paris vraiment Youssou jàpp na ca maa ngi ma àndoon Paris Bercy mais. cause pour laquelle loolu tax mu invité woon ma spécialement invité surprise la defoon sax pour mu ñëw ñu jouer samba àlla bi waaw ñu ngi waaj nag parce que aussi euh, togg kaset euh, bala nga koy mën a génne rek da nga koy togg ba mu ñor parce que du profité génne kaset génne kaset génne kaset boo profité génne kaset mën naa am sax na mu mel waroon a mel du ni mel mais bu fekkee da koy togg di defaraat parole yi ba mu méngoo ak li actualité bi xew ci jamono su génnee nii dañ koy bëgg comme sàmbalaat rek normalement ñu ngi préparé benn nag boo xam ne bi su peu de temps dañ ko def di marché bi ñu dañ ko dégg xam ce qui se passe. Ah, man nag damaa xaw a régionaliste nag. mais nag je suis sénégalais je suis africain je suis sénégalais je suis ak lu mu man ti demee nag charité bien ordonnée commence par soi-même loo mën a def it sa dëkk nga sa dëkk la war a mën a propulser rek ci yenn euh, niveau yi ba nga am def yenn niveau yi dem si nga war a jógee dem Dakar jógee def international bi li sa base bi daal Thiès waa waaw vraiment nag Thiès waaye vraiment ñu ñu ngi ciy jàpp bu baax euh, Thiès maa ngi remercier Thiès waay yëpp. parce que même bu fekkoon da nga ñëw sax euh, boîte ñëw samedi ba nga xam ne vraiment kees a ngi ciy jàpp vraiment amul beneen lieu bu dul vraiment ñëpp fay daje tout le monde ñëppay ñëw waa aar bi nag doxul su doxul aussi ñi ci war a jàpp ci jàppul parce que am na autorité yu fi war a mën a leen jàppale ci jàppale jàppale la ci aar bi parce que nga nekk ci aar bi yow te si amoo soutien amoo dara ça passe pas mënul dem soo nekkee ci aar bi nag am ñoo xam ne ñoo leen war a mën a jàppale fu affaire bu bëgg a kale ñu jàpp ci def ci nag walla rek bu fu bu ci ñëpp jàppoon musique bu Thiès avancé na bu yàgg dem na romb na fépp la musique bi am Thiès ak musique bi am Dakar c'est la même chose boo xoolee c'est des instruments c'est des instruments c'est des voix ay voix voix voilà loolu moo ni gëstu bi nga xamante ne dem nañ ba Thiès def ko ak Cheikh Anta Diop def ko ci Secka nga xam ne je pense que ñi ko namm bëri na si daal. effectivement ñi ko namm bëri na bijou mais xam nga artistes yi euh, dañ ne ku wax li wax la ca des xam nga boo demee ba nekk euh, maanaam ndaanaan bu mag euh, si sa biir base mais ñoom si seen biir dañuy dem ba ci yàgg daal di casser rythme bi tey bu nu demee ba. xam mais pourquoi papa da gis benn artiste boo xam ne dafay exploser di toj di def ay. soirée yoo xam ne day neex ñëpp di dem nga jékki-jékki dootoo ko gis tu comprends pas ce qui se passe. li ko waral euh, bokk na xam nga Thiès aussi euh, bëri na ay ndaanaan yoo xamante ni foofu noonu sukkandiku. Euh, tey boo seetloo Thiès bëri na ay ñoo xamante ni que c'est les célébrités ñoo xamante ni que def nañ jalooro bu ne. Ah, muy muy ci wàllu politique bi ba ci wàllu musique wala théâtre ñu mel ni Soleil Levant kon ñoom Sanex ak musiciens yi waa Flash. ñoom mm-hmm. ñëpp Thiès nañu jógee mais ce qui est un peu malheureux mooy seen base lépp Thiès rek la yam te aussi euh, euh, seen problème euh, boo seetloo ba seet bokk na ci li nga xamante ni moo di génn di def ay recherche te it boo seetloo capital bi fii la Ndakaaru Ndiaye en général ñëw fi tamit def échange ah, avec les artistes importants relation yi di gëstu fi la yu bëri ba wu quoi qu'on puisse dire parce que ñu ci bëri dañuy bëgg ne dañuy défendre seen région du ñu génn mm-hmm. mais après peut-être def leen di porter préjudice quelque part mooy waral sax en général ñu dem ba ci biir dootoo gisee ci kenn ndaxte artiste moom euh, sa mm. euh, boo représenter euh, le Sénégal je crois que da nga war a représenter les quatorze régions du Sénégal te xam ne culture bi ubbeeku na large na mais daal CECA fu mu toll nii il demande de l'aide et puis boo seetloo affaire bi nee na doxatul nu mu waroon demee demeetu ko à la fin da ngay dem ba mere ku la deful dara au fait. Mm. donc on l'encourage comme toujours parce qu'il a beaucoup de talent. et puis yi ñu ngi ci ñu ngi bàyyi xel ci moom surtout mais euh, il doit continuer à gérer euh, mu xam ni que ni aussi tamit CECA euh, CECA Sénégal la. waaw gars c'est clair nous daal on espère que dinañ ko déggaat mu defaat yeneen tub yu mel ni Samba Alar ba nga xamante ne xale yi ko xamul woon dinañ ko xam ndaxte ñun je pense que bercé na suñu jeunesse lu yàgg.